yàqu bu ko tayul nag dafay sujjoot baxda salaam dafa yokk wa nafku fi salaati kalkalaam yi mooy ne ci muxtasar jërëjëf hmm. euh, kii dafay laaj ni hmm. ñoo xam ne dañu génn ci dëkk di tukki yéeg gaal hmm. dem ba ci biir gaal gi suux bi gaal gi suuxee amoon na ci ñuy jullit ak ñu dul jullit waaye ñu toog ñetti fan ñoom ñu teer te bi ñuy génn di teer dem nañ ba xàmmee watunu ku ciy jullit ak ku ci dul jullit léegi dem na ba jaxasoo nag xàmmeewuñu jullit ñi ak ñi dul jullit ah, néew yi daal ñoo jaxasoo léegi te imaam war na leen a jiite mhm. léegi imaam nan la war a def ba jullee ñoom jërëjëf imam buy jullee ay niw te xamul ndax ñii jullit lañ wala chrétien lañ maanaam dañoo jaxasoo daal ay niw jullit ak chrétien yu jaxasoo mhm. ma déggee sa laaj bi mhm. boo demee ci muxtasar indi na ko dafa wax ne wa in ixtalatoo xusiloo wa kufiloo wa moysu muslimu bi niyati salaati mhm. mu ne ay néewu jullit ak chrétien bu ñu jaxasooyee imaam bi mhm. dañuy sang ñëpp sang ñëpp jullee ñëpp waaye imaam bi buy jullee nag ci lay ne maa ngi faskee ne jullee bi jullee ko jullit ñi waaye ñoom ñëpp nag lay teg ndax mënu leen a tàqale moo tax ñoom ñëpp lay teg maanaam bu leen tegee ñoom ñëpp lañuy sang sang leen imaam bi bu demee bay jullee niw yi dafay wax ni yéene jullee bi yéene naa ko jullit ñi ndax kuy julli la ñuy jullee mhm. moo xalil dafa wax ne way nextalatoo xusiloo wa bu mu may su muslimu bi niyati salaatu mu ci muxtasar bu Cheikh Xadim kon noonu la ko imaam bi di defee yéene bi daal ñi la koy jox comme li xewoon batalo joolaa loolu amoon mhm. dañuy dem ba jaxasoo ba nga xam ne dootoo xamati dootoo xamati mhm. Mhm. jërëjëf euh, ci tontu laaj woowu mbokk mi moom laajam mu ngi jëm ci ñaari ràkkay fajar dafa bari lu mu koy tardé mu ni ndax lu mu war di fay la wala déet jërëjëf ñaar ràkkay fajar lu am solo la oustaz yonentu moo wax ne rakkaata fajari xayrun mi dunya wa maa fiha yonentu mu ne ñaar rakkay fajar moo gën àddina ak li ci biiram te nag julli sunna yëpp moom lañ ci fay xalil mu ne wala yax daa xayra fardin fa li moom danañ ko fay ba sawal ba ineer kon bu dee def la faat ba nga yeewoo jant bi yëkkateku boobaa te julliwoon nga suba boobaa da koy fay fekk ba sawal jotagu rek da koy fay kon moom lañ koy fay mu ngi noonu bu ko defee nag moom buñ salaatoo lañ koy julli boo ko jullee ci kër gi am na ñaari wax am na ñu ne boo xasee ba julli ci kër boo ñëwee ci jàkka ji dootoo julli da nga ñëw rek toog ndax foofu fuqaa yi dañuy wax ne diggante ñaaraakay fajar ak ñaaraakay suba kenn du fa julli dara am ñu tàqale diggante te yetu masjid ak naafila dafa am ñu ko tàqale kon yonent wax na ne raakaataa fajari xayru mina dunyaa maa fiihaa moo gën addinaa gi ci biiram li gën addinaa ci biiram nag war nañu koy daf te benn julli sunna bi ñuy fay gisuñ ko lu ñaari rakkee fajar xalil mu ne walaa yax daa xayra fardin ilaahiya fa li sawaabi kon daal bu dee sax da nga yeew fekk mu leer te jant bi yëkkati ko da ngay julli ñaar rakkee suba boo demee ba jant bi yëkkati ko nag nga julli ñaar rakkee fajar boo demee nag ba une fay nga foofu lay am dootu ko fay waaye lu ama am solo la ndi ngir li yonentu wax ne moo gën addinaa li ci biiram fuqaaw maalik yi nag dañoo wax ne faatee rek nga ciy jàng bi umul quraa fa xat moo ñëw ci téere fiq maalik yi waaye ñëw na ci hadiis yonentu jàngoon na ci ñaari saar pour yaay kaatul na ko wala ahad ñu ne jàngoon na ko fa kon Aysa moo wax ne ñaar kay ay fajar yonentu bu ko daan julli dafay gaaw ba nga xam ne dañuy foog ne sax jàngu fa saar tax ñu utee fa ñi ne faatee kese nga fay jàng moo ne ci masa bu Maalik am hadiis bu ñëw ne yonentu jàngoon na fa faatee ak saar yu gàtt boo demee sax ci Ihyaa Ulumuddin Imaamul Xasaali mu ngi wax ne ku fa jàng alam tara kayfa ak alam nasara bés boobu yàlla dana la musal ci ayu bis bi man xaraa bi alam alam lam tusiwu alam di ko jàng alam tara kayfa ak alam nasara wax ji boo demee itam ci téere bu tudd masaalikul jinaan maam borom Tuubaa andi na ne ñaaraa fajar di fa jàng maanaam ñaari saar yooyu dafa baax am na ñu ne faatiha am na ñu ne faatiha ak saar yu gàtt kon daal julli bu baax a baax a baax jërëjëf imaam ci tontu laaj woowu kii defa ni dafa kabar bi julli am ko ko woo mu ni subhanallah hmm. waaye li ko ci jaaxal mooy jot naa gersu waaye gestu moom dañ koo sib ci julli bu dee subhanallah la mhm. dañ koo sib rek wante du yàq dara ci julli mhm. mais gestu bi mu gestu gestu dañ koo sib mhm. ndax dari mu ne kuñ oo ci julli nga ne subhanallah jullim gi wér na du yàq dara ci julli waaye boo gestoo waaye gestu gi moom dañ koo sib dañ koo sib waaw gestu ci julli moom luñ siba sib la wa iltifaatu bi daa darura dee aajo waralu ko bu dee nag da nga gis awra dagan na nga gestoo wala nga gis lu lay tiital wala mu jax-jaxala dagan na nga gestoo wante gestoo biñ sib nag mooy gëstoo boo xam ne dënn ba damut ak xarxanam ba bu dee dënn baa xarxanam ba nag moo dam kon tourné la xam nga tourné gëstoo bokkul tourné moom boo ko defee rek julli gi yàqu na ndax bàyyi nga xibla ba kon moom kuriha waaye wasa al salaatu sim nañ lim dafaa jërëjëf mm-hmm. kii dafay laaj ba tey rek jëm ci cadre julli mm-hmm. mu ni dafa kàbbar di julli mm-hmm. waaye bi muy julli dafa gis xale buy raam uti ndox mu tàng jërëjëf ndax day dagg julleem toggaale loraange gi wala day julli ba pare. dañ koy dagg julli dinañ ko dagg ngir sawe bakkan. muxtasar indi na ko. Mhm. danañ dagg julli ngir sawe bakkan. Mhm. li in li in xaasin axma mhm. xalil wax na mu ne gumba boo xam ne dafay dugg ci sébbu. wala ci niñ ko misaalee natt la ko wala muy dugg ci kàmb. dagan na nga dagg si julli gi dam sawe ko wala xale boo xam ne dafay laal safara wala muy laal gaz lépp loo xam ne dafay lor rek boobaa dagan na. nga dagg sa julli gi dem sooyee ko ndax bakkan dafa foor saas ndax julli xam nga ci bakkan lañ ko farataal hmm. ndax bu ñu ne julli nit moo koy def hmm. gannaaw nit nit nag mooy def julli kon dagan na nga dagg julli pour sooyee bakkan boo paree nga door a dem continuer sa julli kon loolu dafa war sax dafa war boo ko defut da ngay am bakkaar boo ko defut ñàkk sooyee bakkan ngir julli danga am bakkaar ñàkk sooyee bakkan sa julli gi dana wér kon boo gisee xale buy loru wala euh, seen maxa buy dugg foo xam ne mën na koo gaañ dafa war ci fekk nga dem dimbale ko ba pare nga julli moo xam muxtaar mi jeex na wala jeex jërëjëf mm-hmm. kii dafay laaj ni mm-hmm. fois moom mu am lu mu dépensons mm-hmm. des fois du am lu mu dépensons ndax war na ci moom kon mu laaj asaka ndax des fois da koy am des fois du ko am wala asaka dafa am ñoo xam dañ leen ko leen xasatan ñoo ko moom waa jërëjëf faqir danañ ko jox asaka faqir mooy koo xam ne am na waaye lim am doyu ko moom la alxuraan di wax inama bi lil fuqara ñu ne ku amul lu mu dundee ren ba déwén rek faqir nga kon ñu bëri faqir lañ mm-hmm. ku am tey bi subaa nga am bi subaa nga ñàkk kooku mooy faqir mm-hmm. miskin nag mooy ku amul dara mm-hmm. kon kooku danañ ko jox asaka saas am na sama laaj bu ñu ma joxoon nag laaju miraas bi ba du jàll sama laaj bi du jàll ah d'accord d'accord ok d'accord mon dernière question ah xam naa dama ko jërëjëf waaw Mm-hmm. waaye maam mm-hmm. jërëjëf ci tontu laaj bi mm-hmm. beneen laaj bi mu ngi jëm ci miraas mbokk mi dafay laaj ni ki nga xam ni dafa génn àddina bàyyi fi pàppam yaayam soxnam ak ay njabootam nan lañ koy miraas jërëjëf ci laaj boobu xam naa miraas mi sax dana bëri bàyyi na yaay bàyyi ak ay doom njabootam daal ak soxnaam léegi yaayam un sixième lay donn papaam doon un sixième gannaaw doom amul alxuraan a wax ne wali abawayhi li kulli waahid minhuma sudus mimma taraka in kaana lahu waladu hmm. doom fu mu amee ci miraas rek bàyyi yaay yëpp bu ñu fa tasee ku ne un sixième ngay doon hmm. un sixième mooy alal ji bu ñu ko xaajee juróom benn xaaj hmm. ku ne juróom benn bi lañ lay jox bu ko defee nag jabar yi ñoom itam gannaaw ay doom am nañ un huitième lañ leen di jox un huitième mooy sumul juróom-ñetteelu xaaj dañuy jël alal ji xaaj ko juróom-ñetteelu xaaj un huitième bi ñu jox ko jabar yi ñoom ñoo koy séddoo li des ci alal ji yëpp nag bu dee doomi góor yu jigéen la dañuy def góor ñaar jigéen benn noonu la miraas mi di demee bu dee góor kese la ñu jël kii bi wante boobu dañuy seet xam nga miraas dafa am lu ñu koy defee dañuy seet maanaam génnuwaay ñaari génnuwaay suuf si dafay tamaasul bu ko defee ñu seet euh, bu tamaasule ñu seet génn waaye sudus ak génn waaye sumul loolu jàngi miraas danga koy xam dafa am lu ñu tuddee tawaafu ak tamaasul ak tabaayu masalaam masala bu ma leen bëgg a boole dama leen di seete bu ma leen di seete benn mu tamaasul wala mu tadaaxul wala mu tawaafu wala mu tabaayu yooyu boo ko ci jaaree rek di nga mën a génne alal ji bu ma la ko doon misaalal bu dee 6 million la yaay ak baay ku nekk dafay jël benn million ndax moo nekk un sixième xam hmm. nga un six million ci benn boobu mooy nekk un mooy nekk un bu dee fukki million la ak ñaar yaay ak baay yëpp ku nekk ñaari million lay doon ndax loolu boo ko doon seet ci àll ji mooy note insisté boobaa nag ñu seet boobaa itam ñu dajalaat 6 million yëpp boo ko doon def un huitième bi li muy tolloo moom la ñuy jox jabar comme ni ma doon wax yëpp 6 millions yëpp ñu seet ko ñu xaaj ko juróom xaaj un bi ñu jox ko jabar yi ñu séddoo bu dee ay jabar la ñooy séddoo bu dee benn jabar mooy jël léegi nag li des ci alal ji yëpp ñu jox ko doom yi ñu doon ko góor ñaar jigéen benn bu dee góor la maanaam góor ñi jël ñoom ñooy am ci miraas mi kon euh, miraas mi noonu lay demee alquran ne wali kulli waahin minhuma sudus mi ma taraka in kaana lahu wala doom fu mu amee rek way jur un sixième lay doon mhm. léegi ba tey ci miraas bi mhm. imam mhm. ñu war miraas nit mu bàyyi fi deux millions am boru deux millions cinq ndax léegi ñi dañuy donn wala alal ji dan koy jël fay ak bor bi jërëjëf dañuy fay bor bi bor ku ko yore balaa ñuy miraas dañuy fay bu ñu fayee ba bor bi alxuraan dañuy wax ne min baax di wasiyatin yuusi bihaa aw day nii hmm. dénkaane ak bor dañ koy jiital bu dee alal ji mu fi bàyyi dafa dafa em ci bor bi kon ñoom bi am dara képp waaw hmm. bu dee dafa des nag lu fa des dañuy miraas wante ku génn àddina balaa ñu lay defal dara oustaz dañuy fay sa bor yonentu sax bu ñu daan jullee niw hmm. dafay laaj ndax yorelu kenn bor bu ñu la yoreel na diw mu ne man maa ko gàddu dafa na ko ci bon xotaat maa koy fay kon daal lem fa bàyyi moo tolloog bor ba kon ñoom duñ am alxuraan dafa wax ne min bax di wasiyatin yuusi bihaa aw dayni bu dee nag 2 millions la euh, mooy bor bi euh, moom mu bàyyi 2 millions ak 500 boobaa ñoom 500000 ba rek ci la ñuy miraas 2 millions ñu fay ko. jërëjëf li ñu cërale woon ci waxtu dab nanu looy hmm. tàggoo. jërëjëf li ñuy tàggoo comme ni ñu doon nuyoo rek oustaz ñu nuyu nag suñ kilifa diine yi bu baax. Hmm. ndax réew mi dafa am ay kilifa diine yoo xam ne yu baax a baax lañ ñoom ñëpp rek ku lim da nga juum ñu leen di nuyu di leen ndokkeel ndax l'islam bu demee ba mën a àgg fi tey grâce kilifa diine yi liggéey nañu rôle boo xam ne bu mag a mag a mag la ci l'islam ñu leen di nuyu di nuyu mboolem borom xam yëpp di leen ñaanal yàlla ak ñu ñu doon seetaan ñëpp fu ñuy mën a seetaane ñu ngi leen di nuyu di nuyu itam président directeur général rek Youssou Ndour yal na ko yàlla dool tawfeex ak taysiir di nuyu suñu réalisateur bi El Hadj Maw Cissé di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko xam naa nag moom yàkkam dina koor gi jeex trop gis naa ne ko sonn la jërëjëf imaam ci tontu laaj bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant di gërëm ñi nga xam ni ñu ngi nii teewlu saa su nekk ak ñi nga xam ni saa su nekk ñu ngi yónnee seen i laaj ngir ñu jottali leen ko kon nag ñu continuer rek di yónnee laaj yi incha allahu rabbi dinañ leen ko jottalil tontu leen ci ci seen émission fatwa mm-hmm. nu ngi sant tey gërëm ñëpp ñi nga xamante ni nii ñu ngi ni bàyyi xel mm-hmm. comme ni nga ko waxee kilifa diine yi xalifa yëpp ñu ngi leen di mm-hmm. ñaanal sama borom woyofal leen yan wi te yàggal leen sunu kanam sunu xalifa Seydi Mouhamadul Muxtaar mu Seydina mu Njoon mu yàgg fii te ànd ak wér waaye di sant ñëpp di sant Mawa Cissé ak waa Rési yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat dig daje incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا